di fas yéene dikkaat ak yéen ci jataay yu am solo yi nga xam ne ñi ngi koy amal ak yéen ci ayu bis yi yépp ci tomb bu am solo bi nga xam ne moom mooy almuridiyatu wa taxaddiyaat asbaab wa xulul anam yoonu murit ak mbir yi nga xam ne ñoo koy dëkk ngir jële ko fi yooya yan la lan mooy sabab yi waaye lan mooy li nga xam ne moom mooy saafara yi bu ngeen fàttalikoo ci sunu jataay yi nga xam ne moom moo jàll waxtaane woon nañ Euh, lan mooy yoonu murit xamle woon nañ lan mooy yoonu murit waaye duggoon nañ ci keno yi nga xam ne moo téye yoonu murit loola waxoon nañ ci xam-xam xam-xam bu am njariñ al ilmu naafi waaye waxoon nañ ci li nga xam ne moom mooy al amalu saalih mooy jëf ju baax wala ñu di ko tuddee jaamu yàlla tey nag dañuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy al adabul mardi yi euh, te moom mooy li nga xam ne moom la ñuy tuddee ay teggiin mbokk yi manees wax ne euh, yoonu murit yoonu teggiin la wala jëmmi teggin ci boppam moom mooy jëmmi yoonu murit ndax euh, mboolem taalib yi nga xam ne ñoom ñooy askanoo ci yoonu murit dafa bokkoon ci liñ leen di bàkkee moom mooy teggiin dafa bokkoon ci li ñu ràññikoo it moom mooy teggiin ci képp ku ñu war a màggal ñu màggal la waaye képp ku ñu gis ñu ormal la waaye it kàddu yi daan jëfandikoo ay xeetu kàddu la yoo xam ne yu rafet la yu tegginu la nga xam ne daanaka koo ko daan dégg rek kooko da ngay xam ne kii foofa lay askano waaye it jàpp ne képp ku ñu gis képp ku ñu jëflanteel yi yow yaa leen féete kaw yow yaa leen gën maanaam wàcce seen bopp wàcce seen bopp euh, teggin nag mbokk yi solo soosu mu am tax na sëriñ bu mag bi ci boppam doon wax ne xam-xam lu mu bari bari bari te àndut ak ay teggin nee na loola day xëcc nit ki jëme ko ci coona waaye daf koy xëcc jëme ko ci li nga xam ne moom mooy lor fa kasratul ilmi bi gayri adabin jalibatun ila al ada wa taabi loola ma ngi ko jàngale ca téeréem boobu nga xam ne moom mooy tazawudu sigaar beneen bi ci tege it solo soos mu am tax na mu doon wax ne xam-xam ak jëf ak jëfe sab xam-xam boole kook ay teggin mooy li nga xam ne mën naa fàggul nit ki ak mat waalam بأن العلم والأعمال كأدب تكسبك الكمال waaye solo soosu nga xam ne moom la teggin am moo waral mu taalif téere bi nga xam ne moom mooy nahju xadaa'il xaaj ginnaaw ba nga xamante ne si taalibe yi sàkku nañ ci moom mu defal leen way woo xam ne daf leen di jàngal ay teggin ndax sëriñ bi nee na la tax ma def ko mooy képp koo xam ne da ngaa sàkkoo topp yàlla wala topp yonent bi te jaaree woo ko ci teggin nee na kooko des koy xañ ak texe ak ak jariñu waaye daan ne teggiin mooy li gën ci àdduna ak alaxira mooy li gën ci loo xamante ne si nit ki daf koy terloo wala mu di ko tiitaroo waaye teggin mooy li nga xam ne mooy leeral xol yi waaye mooy jegeel aljana waaye day waral ki ko am ñu tagg ko ci ay dëkkandoom yépp nag waaye it day waral mu sori sawara hada wa inni l yawma du baax baad al muridina dawil inaba قد طلبوا نظما حوى تأدبا ليتأدبوا وذاك وجبا إذ كل من بغيره رام اتباع فإنه يحرم فوزا وانتفاع وهو في الدارين خير كنز وخير ما اعتز به ذو عز لأنه المنور الجنان كما يقرب إلى الجنان ويوجب المدح لدى الجيران كما يبعد عن النيران نون لا ko waxe wadit ca la ginnaaw bi mu ko waxee ci naxju xada il xaaj ca la waxee ne li gën ci loo xam ne nit ki daf koy taarlu bu fekkee day wut ab taar mooy taqook ay teggiin ndax nee na teggin daal ci la nit ki di àgge ca sunu boroom waaye it ca lay àgge ca aljana ya képp koo xam ne danga ngaa sàkkoo àgg ci yàlla sunu boroom te jaarewu ko ci ay teggin nee na kooko ab dof la amul xel i'lam xabaana allahu fi daarayni bi fadlihi subhaanahu nuurayni bi anna xayra ma bihi isdaana alfata talaadumu bi xaysu ma ata li annahu bihi ila arrahmani yasilu abdun wa ila aljinaani fa kullu man bi gayrihi raama alwusul li xadratillahi fa gumrun la nabil lii mi ngi ko wax ci masalikul jinaan teggin nag mbokk yi ay xamle yu bari la ame waaye buñ ko doon wax rek mooy jikko ju rafet mooy jikko ju rafet waaye it moom mooy jëflante bu rafet la yonent bi sallallahu alayhi wa doon wax ne wa xaaliqin naasa bi xuluqin xasan maanaam jaxasoog nit ñi ci jikko joo xamante ne se jikko ju rafet la daa daanaka loolu mën nañ wax ne mooy teggin moo tax sëriñ bi doon wax ne fi'luka ma nadarta bi istixsaani wa tarku ma nadarta bi istijaani lépp loo xam ne gis nga ne lii lu rafet la nga jëf ko waaye lépp loo xam ne gis nga ne lii lu ñaaw la loola nga bàyyi ko teggin nag ci ni ko sëriñ bi jàngalee nee na ñaari xaaj la dafa am te moy sa digënté ak mindeef yi am benen teggin bo xamne moy bi neubuté moy sa digënté ak sa borom non la ko waxé ci masalikul jinan te moy wax wa qismani lada daymani adabu zahirin ma al insani wa adabu al batini ma rabb rabbil wara wa yatba'u al batina ma qad zahara kala waxe wat it ne kun mutaaddiban ma maa rahmani wa ma xalqihi bi kulli sha'ni kon mbokk yi deug deug lolou noonu la xam xamlee teggin mooy teggin yi feeñ ak teggin yi nga xamante ne si moom mooy li nëbbu te mooy ñaari xaaj yi feeñ sa diggante ak mbindeef yi li nëbbu sa diggante ak sa boroom teggin yi feeñ nag mbokk yi buñ ko waxee moom mooy jëflante bu rafet mooy jikko ju rafet loola nag nit ki mu ngi koy tàmbalee ci boppam doog a jàll ci ñeneen ñi nga xam ne ñoom la séqal te mooy askan wi sëriñ bi nee na la njëkk ngay sàkku ci keneen ay teggin na nga xool sa bopp yow def naq de daat jàngat sa bopp lan nga am ci ay teggin ak lan mooy li nga xamante ne si amoo ko ci ay teggin defaru ba pare doog a sàkku ci keneen mu jéem a defaru te lay waxee ne wala tutaaliban bal i'tabir min nafsika al aadaaba wala tutaaliban bihi l asxaaba waaye teggin yooyu nga xam ne moom ngay jëflanteeg ñeneen yi am na ca koo xam ne moo la féete mag kooko nee na na ko wekk ormal ko doonte ku néew doole la ka nga xamante ne si gone la nee na na ko yërëm kem ni nga xam ne noonu la ko ay waajuram di yërëme ñun ñëpp xam nañ ne waajur bëgg gi mu bëgg doomam ak yërmaane ji mu am ci moom tax na lépp luy fitna lépp luy musiba lu dara dal ci doomam loola jaral na ko mu coobarlewu loola dal ci kawam ngir dooma mucc waaye it ki nga yamal ay at wala ki nga tollool nga def ne nga def ko ne sa bopp bu fekkee mboolem nit ñi la nee na na nekkee ñoom kem na nga bëggee ñu nekkee ko yow na nga bëggee nit ñi rafetale ko jëmee ci yow yow it na nga rafetale jëmee noona ca nit ña bu fekkee it mboolem mbindeef yi la nga xam ne doomu aadama yi sax nag jagowuñ ko waaye lépp lu yàlla bind rek nee na na nga leen yërëm waaye na nga leen di xool bëtëb cofeel ak bëtëb yërmande ca lay waxee ne tariqatul adabi rahmatu sagir kal abi wal ummi wa tawxiirul kabir وتوخير الكبير وجعل مثلك كنفسك سواء لوجه قالق على العرش استوى وكن مع الناس جميعا دهرك كما تحب أن يكونوا معك ارحم أقي جميع القلق كلهم وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة bu fekkee ci ki la mag la ba tey it mu gën la koo leeralal nee na bu fekkee da nga dégg ku la mag muy sàkku benn aajo lu mel ni ki mu sàkku ku mu yabal ci barab ngir mu defal ko benn aajo nee na na ko defal loola te jëmmi yàlla rek tax wa in samicta man yakunu akbara minka yuxaawilu zamanan watara ka an yaruuma mursalan li xaaja faqdi lahu lillahi tilka alxaaja bu fekkee it teggii ni ki nga xam ne dangaa ànd ak moom ci tukki nee na boo àndeek aw nit ci tukki nee na lépp luy seen aajo lépp luy seen soxla na nga leen ci dimbale ndax tukki dafa metti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon wax ne aw daggit la ci li nga xam ne moom mooy mbugal qitaatun min al adab moo tax mu doon wax moom sëriñ bi ne wa in saaxabta xawman fi safar fa kun muinahum ala kulli watar bu fekkee teggin la yi nga xam ne moom nga war a sàmmonte ak ki nga xam ne moom ngay waxtaanal nee na bul ko wax da ngay fen wala nga ne ko li nga wax du dëgg wala nga ne ko juum na wala yu mel ni ki yooyu yoo xam ne mën na koo merloo donte ab gone la sax ab xale la nee na bul ko ko wax nee na daal sa làmmiñ na nga koy tàmmal wax ju baax te it loola da nga ca am ak pexe te dees na la fegal lépp loo xam ne mooy lor ca la waxe ne wala taqul li ahadin kazabta aw qulta gayra alxaqi aw aqta'ta aw gayraha min kulli cheyin yusqitu walaw sabiyan kaana fa huwa galatu wa awidi lisaana qawla alxayri tafuz bihi wa wa tukfa kulla dayl bu fekkee teggii ni nelaw la nelaw mu ne la boo ko manee bul fekk nit ñoo xam ne dañuy xoole ngay nelaw ci seen biir euh, ndax loola euh, mën naa waral li nga xam ne moom mooy yeddaanga ndax nit ki bu xasee bay nelaw rek bu boobaa yegatul dara te lu nekk mën naa génne ca moom te loola mën naa waral yeddaanga ca la waxee wa in qadarta la takun da nawmi bayna dawi yaqdatin fi lqawmi bayna dawi yaqdatin fi lqawmi fa innahu laysa min al aadaabi id fiihi ma fiihi min al itaabi bu fekkee teggi ni ñam la it mu ne la xamal ne xër ci aw ñam ci aw ñam bokk na ci yi nga xam ne day waral gàcce ak li nga xam ne moom mooy yedd nga daal di wax ne képp koo xam ne danga nga sa itte jëpp ci aw ñam ci lekk rek ak sëy nee na kooka moom moo dajale moo leen ŋàññi ya daal wax ne aw ñam daal doy na la ca loo xam ne day dëgëral sa ndigg ngir nga man koo toppee sa borom te mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne euh, xaaj bii ngir noyyi bi ngir lekk bii ngir naan mooy la sëriñ bi di wax ne waalam bi anna al xirsa li taami min mujibaati al aari wal malaami euh, wa man yualliq bi taami al himma fa huwa jaamiu al madimma xasbuka minhu ma yuqimu sulba taqawiyan li kay tutia rabba ndaka noonu it noonu na la jàngale li nga xam ne moom mooy teggi ni nuyoo daan ne la bu fekkee da ngaa ñëw ci nit na nuyu bu fekkee moom moo la tàmbalee nuyu na delloo nuyoo ba ca nam gën a rafete bu fekkee da ngay saafonteeg moom ngeen joxante loxo nee na na nga dëgëral sam nday joor cim nday jooram te bul ko rocci lu dul moom moo ko tàmbalee rocc ci ci lu fés ndax nee fëkk ay loxo ci am nuyoo Euh, nee na loola dañ koo dañ koo sib naka noonu lu mel ni ki bàyyi li nga xamante ne si moom mooy ay wax nee na loola it ba tey dañ ko sib nee na daal dañoo bëgg booy nuyoo ka ngay saafoonteel ngeen ni jàmm sante di waxante te it lépp loo ko mën a ñaanal ci aw yiw ñaanal ko ko moom it mu ñaanal la nee na loolu bokk na ci li nga xam ne day far ay bakkaar ca la waxee ne wa salliman ala alladi xadimta alayhi inta adduban talabta wa in yakun minhu ibtida salaami fa ruddahu alayhi bilkalaami wa xaytuma saafaxtahu fa makkini yumnaaka min yumnaahu bilmustaxsani ba ni abyaat yi jeexee ca nax ju xada ilxaaj ndax noonu it noonu la la jàngale li nga xam ne moom mooy teggiinu euh, dugg ci barab nee na bu fekkee da ngaa bëgg a dugg ci ab barab nee na na nga sàkku ndigal bañ digal la nga doog a dugg nee na lu ko moy rek delluwaatal delluwaatal nee na bu fekkee da dugg ca barab ba it bul wëndeel sab gis ba fu nekk nga jamale ko fa ndax nee na man nga teg sa bët ci loo xam ne lu nu suturaal la awra la fekk bugguñu woon nga gis ko ca la waxee ne wa in turid duxula baytil xayri fa ahlahu stazin tafus bi xayri fa in humu qad adinu fi daaka fadxul wa illa farji an hunaka wala tujil fi bayti gayrika al basar xawfa tilaaci awratin fihi sutir wala satar ndaka noonu it moom sëñ bu mag bi noonu la jàngalee ci ay teggin li nga xam ne moom mooy teggiinu dox nee na daal booy dox na nga dox ngir soxla ngir aajo waaye bul dox ngir puukareewu wala ngay dox ngir tàmbaambalu nee na it booy reetaan na lu jar reetaan tax ngay reetaan te it booy dox bul bari looy geestu booy geestu na nga geestu ci lu ko jar ndax nee na dox di tàmbaamalu ci lu dul soxla ci lu dul aajo ak reetaan yoo xam ne gisoo lu ko jar nee yi yep ak ndof la dafa ak ay teggin ca la waxe ne wamshi li ajli hajatin dun ikhtiyal fal ikhtiyal jalib ila nakal la ad addahra min gayri ajab wala tamil lil للمشي من غير أرب ولا تكن ملتفتا بلا طلب فكل dhi hamaqatun nafat adab naka non it non la jangale batay teggin teggin ci li nga xamne mom moy ab gis nee na bu fekkee euh, da ngay dox bul baril looy geestu bul baril looy geestu ndax loola màndargam réer la euh, nee na it bu fekkee danga nga yabal sab gis ba lu ko neex xool mu topp sab xool rek nee na bis da nga xool loo xam ne da nga bëgg a xool léppam te doo mën a xool léppam te lennam lay doo ko mën a muñ loola indil la fitna wala takun mukassira altifaati min gayri xaajatin ila aljihaati فإنه علامة الجهل يبين وفي كتاب الله قل للمؤمنين فكن لأمر ذي الورى ممتثلا إذ جاء في الحديث أن الرجل وإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر قل للمؤمنين لولا يغض من أبصارهم أن الرجل آه، لا ينظر نظرة ينغل قلبه لأن نت دنا خال xool ab xool boo xam ne mën na yàq ab xolam Euh, def der boobu noonu nga xam ne bu koy sibi euh, naka noonu it euh, moom sëñ bu mag bi noonu la jàngalee ba tey ay teggin yoo xam ne dafa jëm ci teggini jataay yi nee na boo nekkee cib jataay nga bëgg a jóg nee na na nga ko def ci ak ñaw na ko def ci ak ñaw ndax am na xeetu jógin woo xam ne cib jataay mbokk yi day yàq ab jataay waaye boo toogee ci aw nit bul nekk di jëri suuf sa ca seen xar kanam ya waaye it bul baril ay fo ak reetaan ak yëngatu boo xam ne amul yemukaay waaye it bul fekk loo xam ne dañ koo nëbbu sutural ko nga bëgg koo dañ kumpa euh, nee na it boo nekkee ci jataay bi na nga dalal saw yaram te na nga taqoo ak noppi te it lépp loo xam ne mooy ŋàññante ak wax ju ñaaw nee na loola na ko muñ bul ca dugg wa in min al majlisi xaawalta qiyaam fa ala labaqatin waxta alqiyaam wala takun min thamma thaariya turaab على وجوههم لقل فيه الصواب ولا تكثر حيث كنت اللأوى وضحك مع تحرك واللغوى والاضطراب والتطاول إلى تطلع على قفي مسجلا ننلق وهبتي وكن لدى المجلس ساكن الجسد ولازم الصمت بإعراض طفل noonu it أي تجين teggin ba tey ci teggini waxtaan nee na bu fekkee da nga nekk koo xam ne moo la féete mag nee na bul reetaan lu dul da ngaa da ngaa muuñ muuñ sax mooy li nga xam ne moom mooy sunna moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def nee na bu fekkee ci ay wax la bul booyal sa kàddu rek muy dem waaye nee na na ngay noppi ba mu sàkku ci wax nga sàq nga waxanteeg moom kem la nga xam ne moom la sàkku te bul jël say bët rek ne ko ko xujju nee na loola daal dafa dàqonteeg ay teggin wa in tujaalis man yakunu a'zama minka fala tadhak ada tabassuma mooy nit koo xam ne nit ku nu ormal la ku màgg la وفي الكلام معه لا تكن مسترسلا فإنه لم يحسن كن ساكتا حتى يحاول منك كلام حتى يحاول كلام منك فخاطف قدر المرام ولا تواجهنه بالنظر في كل وقت رامخا بالبصر noonu it moom sëriñ bi ci ay teggin ba tey noonu la jàngalee sa teggin sa diggante sa ay waajur nee na na nga leen topp na nga ñeewante ci ñoom ñaar lépp luñ la digal it nanga njëkkante na nga gaawantu ngir jëfe li nga xam ne moom mooy ndigal loolu lépp luñ la tere it nanga ko bàyyi euh, ngir jëmmi sa boroom waaye képp koo xam ne moo la féete mag ci say jege ñaale kooku nanga ko wekk ak ñu dul ñooñu na nga nekkee nit ñi ci jikko ju rafet bu boobaa suñ boroom dana la sopp dana la bëgg nee na na rafetal sa jikko di yaatal nit ñi ak di di leen sopp di sopp di jëme ci ñoom te waaye it booy wax ak ñoom na nga nooyal sa ay wax ndax nooyal ay wax mi ngi bokk ci euh, jikko yi way ñaw ya ndax nit barawaana mu bëgg dara jot ca te wax ju nooy wax ju rafeta tax waaye barawaana mu bëgg dara loola ñu xañ ko ko te fekk waxin wa moom moo tax wa burra wala wa birra walidayka warfux bihima wa kun mubadiran li amrihima وانتهي عن جملة ما قد نهياك عنه لربك فيزداد علاك وكل من يكون منك أكبر من الأقارب فكن موقرا فكن موقرا وغيرهم wa kun ma annaasi jamii bil xulqi alxasani yuxbibka albadii wala yin il qawla li kulli nnaasi fa innahu siyamul akyaasi noonu la la jàngale it teggin ci ki nga xam ne moom ngay àndal nee na boo bëggee àndandoo bul ànd ak koo xam ne dafa dese koo xam ne xel ma boo koo xam ne woyut dafa wayadi wala koo xam ne dafa iñaan wala koo xam ne daa bari ay bëgg-bëgg booy toog it bul toog koo xam ne kudul koo xam ne danga nga dolli ko ci moom diine ak xel waaye it nee na booy ànd ak ay nit bul nekk di gëstu seen ay pakkastal wala boog di seet seen ay awra waaye it booy ànd ak ay nit na nga moytandiku di wuute ab dikk di wax loo xamante ni doo ko def ak di wax lu dul dëgg ndax yooyu bokk na ci nga xam ne day gàkkal waxtaan kon nanga ko moytandiku wala tusaaxib in aradta soxba daa safahin aw xasadin aw raxba wala tujaalis غير من به تزاد دينا وعقلا تنى المراد ولا تكن ملتمسا للعثرات ولا تباحث أبدا عن عورات واعلم بأن خلف وعد وكذب من آفة الحديث عنه مجنب نونيت أه، نون لا يا باتاي ليغا خامني موم موي تيغي ني نين دال ليغا خامني مو نيكي سا ديغنتي سا بير اك سا سي اوم نينا يوي نا غاي مويتو دال موي فيغ موي فيغ ndax noona nee na loola mandarga ci ak réer ak ak ndof ak néew a kersa gi nga xam ne mooy mbokkam diine ndax kersa fu mu nekkul rek diine nekkatu fa diina diine nekkatu fa wa an sarawilika la takshif abad fa innahu min tarki adabin yuad wa huwa yura min siyami al ashrari fusaaqi xassaani dawi l idbaari واحذر من الكشف عن البطن كذا ما بين سرة وركبة لداء فإنه للحمق والجهل سمة وقلة المروءة المعظمة id hiya uxtu diini xaysu fuqidat laa yujadu diinu kama anhum sabat noonu it la jàngale moom sëriñ bi ba tey giin ak boroom xam-xam yi ci na nga leen ziyaare ji muy borom xam-xam yi ak ñu baax ñi di sàkku seen ñaan waaye di leen liggéeyal euh, ndax nee na màggal boroom xam-xam bu jëfe xam-xamam nee na mooy màggal sunu borom wa zur xiyaar al ulama walsaalixin waqlimhum lillahi jalla kulla xiin ba ci na mu waxe ne fa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arshi fii ma qad nuqil waaye it noonu la jàngalee li nga xam ne moom mooy teggin ak sëriñ mooy sab sëriñ moo xam sëriñ bi lay jàngal la wala sëriñ bi nga xam ne moo lay yar ci yoonu yàlla ca la waxe ne wa gaayata tawxiiri waqir cheyqaka wajcalhu sayidan lahu hab xayraka nee na na nga wa gaayata tawxiiri waqir cheyqaka wajcalhu sayidan lahu hab xayraka nee na na nga wekk sab sëriñ Eh, day talab wek day talab wek ko def ab sang yit na nga ko def ab sang lépp luy lu baax yit na nga koy jëmale ci moom eh, waaye it koy fajal ay aajoom li fiye ngay dund ci di ko jox ak di ko lëggéeyal sa kamtulaay kattan waqdil xawaaija lahu ma ishta bil badli wal xidmati mastataata waaye it noonu la indi ay teggin ci sa digganteeg sa gan nee gan yi na nga leen teral gan bu la dikkalee la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc na teral ganam waaye nee na na nga teral gan ña ci yaatal leen ak ci berndeel leen ak ci di leen bégal waaye ak di leen jegeel lépp loo xamante ni si war na leen mën a sori nee na gan daal bu ñëwee ci yow nee na sab xol bu mu xat ci moom ndax lu yàggul dara gan googa day dem te bu demee it dana xibaar aw nitam moom lam fa gis ak lam fa nekkee woon wa akrimi l adyaafa bi tarxibi wa bil qira wal bisri wa taqribi la yastadiq li dayqi la yastadiq li dayfi min kalkalkalu fa innahu amma qaribin yarxalu kon ak yeneen ak yeneen yoo xam ne sëriñ bi jàngale na ko ci li nga xam ne moom mooy ay xeetu teggin yoo xam ne yu am solo la mbokk yi euh, bu ko defee incha allahu kon euh, ci jataay bii di ñëw bu soobe yàlla dinañ waxtaane li nga xam ne moom mooy lëggéey ci yoonu murit lëggéey ci yoonu murit danañ ko waxtaane di dog ñëpp ngant di jégglu ci abyaat yi sax niñ ko doon jàngee loolu lépp xëy na le waajal gu des la rek waaye incha allahu lu ci jar jubbanti mbokk yi bu soobee yàlla ñoom danañ ko jubbanti ci seen ay gis-gis wassalaamu aleykum wa rahmatullahi